lan moo war a nekk qualité gardien de but lan la war a am loo xamante ça lui permettra bu toogee ci ay cage xelam dina dal bu baax. gardien de but galaajam mooy entraînement mental. entraînement ak mental da ngay entraîné ba pare am mental de fer. mental bi ça veut dire. mental bi mooy gëm sa bopp. Mhm. gëm ni 7 mètre 32 yi nii nii nii kenn du ko si dugal 7 mètre 32 yi nii da ngay njëkk a gëm ni yow kenn du la si dugal parce que li nga liggéey liggéey gardien dafa métti. Mhm. nga am mental ni fii kenn du ma fi dugal du galaaj du ndomba bu ñuy takk du saafara bu ñuy sotti mhm. entraînement gardien da ngay entraîné ba nekk topp nga gëm sa bopp ne cas yi nii du ma si dugal mhm. loolu mooy gardien bi parce que gardien dafa war am autorité bu ñu la déggee 7 mètre de am autorité sa biir camp am autorité sa surface de réparation mhm. ba nga xam ni kenn du la sonal man bu waaw responsable man sama biir zone moo fay góolu

jour bu def deux match mhm. yu baax def trois yu bon deux match yu baax trois yu bon mhm. benn match bu baax benn bu bon benn bu baax benn bu bon loolu ñun mag ñi sax mën nañu jour da nga war am continuité mhm. championnat soo ko démarré nga am continuité comme ni ko ñoom Chris defee ak ñoom Neymar ak ñooñu parce que ñooñu dañuy jël ballon d'or mais da nga gis chaque jour dañuy gën am envie de jeu mais fii Sénégal da ngay des benn koñ dugal ñaari but ñetti but bu subaa nga changé modèle commencé indi yeneen bagage ñu naan booy bi lan moo ko dal fekk boobu liggéey bi dafa war gën a continuer liggéey bi saa yoo defee performance da war a gën a continuer liggéey euh, tey série penalty euh, nekk na loo xamante euh, jafe-jafe la woon ci équipe nationale du Sénégal je conjugue au passé parce que ak compétition africaine yi gis nañu gardien de but yi réussir nañ ko mu nekk ay gardien de but yoo xam te xam nga leen Pape Seydou Ndiaye du côté de Jaraaf Moussa Sarr côté Teungueth FC Euh, tey ndax il y a eu un discours boo xamante tenir nga ko ak ñaari gardien yooyu ba ñu def exploit yooyu noonu ci compétition africaine bon loolu mooy li ma wax rek ku jaar sama loxo moom penalty penalty war nga ci xam lu bëri waaw ku jaar sama loxo penalty war nga xam lu bëri ñun Moussa Sarr depuis mu nekk yëgoo laa ko yore mhm. man mënuma arrêté cinquante neuf penalty musuma perte tiro bit mhm. j'ai tiro bit ba mu jeex ñu gañam amul mais yow lan mooy sa secret. voilà sama secret boobu moom lay transmettre booy. Mhm. bu ñu demee feneen ak feneen man leen penalty yi bu waaj yi dóor. Mhm. nii ngay def ak nii dama leen koy préparé même en équipe nationale U20. penalty yi fii nga nii ngay taxawee bu dee droitier taxawal nii bu dee gauche taxawal nii sooy plongé plongé nii waaj fii la war a dóor bu dee droitier. Mhm. loolu dama leen koy jàngal parce que loolu xam-xam la boo xam ne il faut nga nekk si man Masu jaraf bi dernière minute loolu bettu ma mhm. waaw parce que loolu am na lu ñu ko si jàngal fii nii si stade bi maag sama waa ji mhm. Moussa Sarr bi ñu demee Maroc série bi dama toog samay bagage dem taxaw ne parce que am na ko jàngal veille match bi ne ko lii ak lii ak lii moo tax keroog série bi mu jàpp trois penalty mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak ñeneen ñoo xam dama ne la boo jaaree si kaana penalty yi cinq penalty yi nit mënu la ko dugal parce que loolu xam-xam la boo xam ne ñun ñoo ko ñun waaw du ma toog si télé bi naan la nii la ak nii ak nii ak nii après gars yi ñuy copier mais ñun buñ la yoree buñ la buñ la yoree buñ bu nekk di nga si jàpp trois penalty wala deux. waaw loolu moom dama la ko wax nga dégg ko série bu bu am di nga jàpp deux penalty. même tout récemment u yi bi ñu leen gagné fii. gars yi daan nañu compte Sénégal lañu gagné mais góol bi jàpp na deux penalty. Sénégal am dugal gagné après gars yi seen cinquième tir. contre Gambie yi. ba demi final bi jàpp na deux mm-hmm. bi ñuy gagné Pologne Jali jàpp na deux penalty. Mm-hmm. bi ñuy gagné Mali final Coupe d'Afrique Jali jàpp na benn penalty xaw de deux loolu moom dama la koy préparé léegi nag. Mm-hmm. joueurs yi comme ni ko juste avant di waxee joueurs yi dañuy jàng dóor penalty. commencé ci Sadio Mané joueurs yi dañuy jàng dóor penalty penalty lépp la du sens. mérite la da ngay mérité pour mais fii Sénégal dañ naan penalty sens la. bu sens dañ koy tirage ku dem. mais mérite la da ngay teg penalty yi am fulla ak fayda. Mhm. góol bi taxaw nga taxaw nga mérité dóor ci angle bi mu dugg lolu commencé ci liguey ba commencé nañ ci avancer xëy na duñ ci gën liguey liggéey ba nga xamni Sénégal deetul perte ay sur de penalty yi. alors dañuy euh, kon yamalé fi li nga xamanté kon modi modi émission bi bala ñuy passer micro bi ce euh, adjoint bi dama lay bay nga tagato nga lancer peut-être un message par rapport au centre. waaw message bay lancer rek bon lancé nako tout récemment ci benn journal nañ am gëm-gëm te liggéey ñu basé formation bi ñuy def nii centre formation bi nii ñun faw ñu caaxaanuñu te jii ñu nekk Sénégal di liggéey di liggéey liggéey ba club yëpp ku soxla góol ne kaana nañ dem si kaana mu jox ñu góol dama ñu booy fo centre bi moo ñu ñu nekk ay euh, gardien équipe nationale u nekk entraîneur gardien

dina am ay détails ay wax ay wax ay wax ay wax soo gëmee sa bopp mu réussir soo gëmul sa bopp dangay taxaw mhm. tey ji bu ñu demee ba yàlla def tey ji seen cër ñëw fii ak ñeneen ñeneen ne góor lañ soxla c'est parce que ñun dañoo sonn yàgg ci stade bi nit ñi dañu ko considéré ay comédien ba yàlla def tey ji même bu ñu réussirul tamit am na mu ñuy dégg mhm.